Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Assalamu alaikum alaikum ye Bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche mu bi pour vidéo wuñ munti doon nga mën ko am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche mu bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk am. na nag loo fi gis tey rek ca gaal ak yonentu yàlla ga duggoon na ca am na sax ñu ne jiit ak jaan bëggoon ñoo ñëw dugg noox ne du ngeen dugg dangeen ngeen di lor nit ñi rek yéen da ngeen di matte rek di lore ñu ne ko képp ko muslu yàlla ci sa tuur wi rek def tawasul ki sa tur wi rek dootuñ ko màttati moo tax ñu ne place boo ragal teg fa sa tànk baa nga nar faa fanaan. boo ne salaamun ala nooxin fil fil aalamina yàlla musal la ci jiit yi ak jaane du la fa matt loolu ñu ko waxee ci borom xam-xam yi lañ ko jëlee boo demee ci kutubu tafsir yëpp fekk ko ci. bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a am. bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën koo njëkk a am. kii ku ko bëgg doo soxor ah kii ku ko bëgg doo soxor Moustapha Samb ndaxte nabi ku ko bëgg doo soxor ndax jëwul ngeen nee ndax xol baa laab nga ni ndax nabi jëwul ngeen aha tasu yaakaar billahi xettal jiw la billahi alal ji aha kirim ji baayo la fa day teral ndaw fa day teral mag def leen nii ndeysaan ndeysaan soxna Maymuna topp Seydina Muhammad tour du monde waxaat ko waxaat ko waxaat ko waa ana ñi bëgg rasulullah yi man de damay laaj ndax am na ku sopp yeneen ngeen wax na jëwul dene tasu yaakaar xetti li jirim la ala ji noon la yërëm ji baaya la yaa faatu na day teral ndaw nabi day teral mag fa la yem waxandoo leen ko Mamadou Lamine man de man bëgg naa aha waxaat ko waxaatal loolu waxaatal loolu day teral ma fa la yam day teral dëkkandoo rawaan mbay président Sida Mamadou Lamine